bismillahi wa hala millati rasuli wa la qadim fi yawmil jumu'ati gisin ni ma gis noore ni tay ci suba gi ak lim ma wax te tay di aljuma di fanweeri fan ci rajab weer rajab bi dafa kamil tay la fanweeri fan suba gi gis gi ma ko gis ak li ma wax mo waral talif bi ndax daf ma wax ne ma da ngay doom ba nopi bi xarit kon lol day wone ni na ci man motax tax bi mënul wona ñaar ma tàmbalee ko nak fay bor bun afaan dafay luma tële waaye dëkkam bële danaa fa def tëli maanaam diggante daaru ak Shukori laa bëgg wax ak Shukori benn la yóbbu fa ab équipe ñu def fa ab usine talibe yi di liggéey ci ay machine Serigne tubaa fay na Cerno ba wis ko ndaayaan sedd la ci nooree ni wax ko weeru rajab wi ren dafa kaamil nooree ni jàngal nañ ko ci ñaari kaamil benn moom ak yaayam ak njabootam beneen bi ndaayaan moom it ak njabootam Cheikh Ibrahima Fati ak njabootam shukran alal xadimi waaw laa ko jox itam maanaam jërëjëfe Serigne Touba mbóot na man moom laa féetalee maam Thierno Birahim jox ko ko addiyee mbóotum jërëjëfe Serigne Touba ak li ma ci ko tedd ki defal ajjumay tey mooy fanweer ci weer wala jàpp nooré ni ñëw ci suba gi ni daf maa sopp ni ma dangay doom ba noppi te di xarit bu doon doomu guró damay nekk xarit alhamdulilahi ndegam gërëm na ma magam gërëm na ma baayam gërëm na ma maam ma ree ma yaayam itam gërëm na ma waa kër ku tedd gërëm nañu ma ma koy sant ku tedd ki moo ko waral budul ko nag moom kenn ci ñoom duma ci xool jërëjëfe Sëriñ Tuba jërëjëfati fàtte woo ma man itam waaw jërëjëfati fàtte woo ma man itam duma la fàtte mukk mukk nde doonoo ku ñuy fàtte sa doom newoon na ma sa mbir dafa sotti assalaamu ala man itabahal huda